rajo defaral sunu bopp moodu modu yëpp ko bokk ci jaaxle mbir na nga juuf indi laa asalaamaaleykum mbokki Sénégal yi asalaamaaleykum mbokki Gambien yi asalaamaaleykum mbokki yéen ñi déglu rajo defaral suñu bopp seen xarit Baye Diouf mu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant mbokk yi ñu ngi ñëw rek wax dëgg yàlla ci tabaski bi ñu génn euh, ñu ngi bàlloo àq. di baalal ak bépp doomu aadama boo xam ne mu ngi ñuy suivre wala mu ngi déglu ci rajo defaral suñu bopp ñu ngi bàllu ak ndaxte wax dëgg yàlla wax du lu su fekkee ne nit ñu bari dañ lay déglu di jëriñoo am yaakaar ci say wax pour xam te kenn matul mbokk yi ñàkkul ne wax nañ fi erreur wala wax nañ fi loo xam ne eh, demeewul noonu su fekkee ne am na mbokk yi ñu ngi jégalu te soo watul sax am na mais ñu ngi jégalu wala ne ko nit ñi di déggee nekkewul noonu comprendre wuñ ko ni nga ko bëgg waxee ñu ngi ciy jégalu mbokk yi di leen ñaanal jàmm di ñaan eh, wér-gu-yaram ci mbirum période bii ñu toll mu nekk affaire yi Covid bi. Euh, dem ba ci génn mu mel ni mbir mi mu ngi ñëwaat euh, yal na ko fi yàlla yemal yemal ko fii ci itali gi dëkk mbokk yi waaye aussi yemal ko ci réew jóge ndaxte wax dëgg yàlla foofu tamit dafa mel ni am na lu fa yëngatu euh, ci mbirum feebar bi mbokki yi leen di nuyu seen xarit bàyyi Diouf bu rajo defaral suñu bopp yàlla def na waxtu wi ma toll maa ngi ci sud bi nekk ci ay liggéey ci ay xale doomu africain yu nekk fii ci centre bi ñuy tuddee Casa Sankara yàlla def wax dëgg yàlla am ci liggéey yu bari yiñ ci nekk di ci jàpp loolu rek moo tax wax ji ak émission yi wàññeeku waaye mbokk yi fàttewuñu leen benn yoon te rajo defaral suñu bopp comme ni ma ko fi waxee woon yàggul dara am nay ay ay programme maanaam nekkee neneen gën a yaatu buñ bëgg incha allah euh, doxal pour mën di ko tas nit ñi gën a xam wax dëgg yàlla nekkaay bi fii ci Italie ak ci bitim réew kon nag mbokk yi seen xarit Baye Diouf mu ngi sàkku ñaan mu ngi sàkku ñaan euh, ci yéen ñëpp ngeen euh, ñaanal ñu rajo defaral suñu bopp pour kàttan gi mën-mën bi ak xam-xam bi gën a taxaw ñu mën indi rajo defaral suñu bopp indi ci xibaar yu yaatu te yu doomu africain yi nekk fii ci itali ak ci bitim réew mbokk yi ñu ngi di nuyu di leen wax ne tabaski bi effectivement fii liñ ko passé fii ci Casa Sankara wax dëgg yàlla parce que Casa Sankara bu jege ci cinq cent doomi africain ñu ñoo fi ñoom rek ñoo fi dëkk ñëpp nag di góor Euh, euh, yàlla def na ay liggéey ñu nekk ay liggéeykat digg yàlla moom organisation bu jaar yoon waxoon naa fi ne ubbi nañ fi benn bureau boo xam ne ñu ngi ci ànd ñet ñaari organisme yu mag kii di Coldiretti kii di CGL Fly mbokk yi wax dëgg yàlla euh, liggéey bi moom lu ci loolu moo ñu téye ba nga xam ne su ngoon su jotee dañ dul am sax <laughs> dañuy sonn ba nga xam ne duñ mën a def xibaar yi waaye nag suñ xel yëpp a ngi ci yenn mbokk yi donc ñu ngi leen di nuyu di leen yëgal ne Casa Sankara centre boobu ñu fi taxawal muy centro per l'integrazione li fas ne mooy lépp lu jëm ci mbirum liggéey yu tool ñu bokk ci nga xam ne ñoo koy teg ci yoon waaye tamit ñu bokk ci nga xam ne képp koo xam ne soxla nga ci liggéey soo ñëwee fii ñu teg la ci yoon waaye tamit bépp borom tool bu bugg a teg mbir yi ci yoon ndaxte nag am na fii ci euh, Fodja fii ci Poulia parfois am na ci ñoo xam ne wax dëgg yàlla la ñuy def muy borom tool yi parfois day niroog njaam day niroog esclavage te loolu dañ koy xeex waaye nag bépp bërëm tool boo xam ne bëgg nga jaar ci yoon. maanaam contrat yu jaar ci yoon ak euh, fay paiement bu jaar ci yoon dëgg yàlla soo fi ñëwee euh, dinañ gis ay xale xale yi fi nekk dinañ la boole ñoom taxawu leen ba lépp mat mbokk yi daaw defoon nañ ko fii yóbbu fii ay xale foofu ci Trento mu nekkoon seize personnes euh, borom tool yi kontaan trop ci récolte uva ah, maanaam dagg raisin bi borom tool yi ñu fa yóbboon xale yi ñu kontaan trop ba waat ñu ne dañu soxla wat 30 xalé wax deug yalla ñu koy préparer à partir du 1er septembre bokki casa sankara ñu koy wax ci point de rencontre du travail agricole la yagul dara barki dem eh, semaine dernière une eh, société bi gëna mag ci mbirum rak euh euh bay tomate deug yalla nek ay azienda bu mag fi ci poulia dañ fay ñëwoon wax ne dañoo soxla cinquante xale ñeneen tamit boromi tool ñëw nañ fii commencé di wax ne dañoo soxla ay xale ñu wax leen wax dëgg yàlla liñ ci yore ay demande macha allah mu ngi bëggoo sakkan liggéey bi nag ñi nga xam ne ñoom lañ gën a privilégié mooy ñiñ xam ñun te dëkk ak ñun fii ci Casa Sankara waaye nag dañ ne jot na ñu ubbi ko surtout nag ñi nga xam ne ñu ngi dëkk commencé ko ñi nga xam ne ñu ngi dëkk ci Foggia province de Foggia dëkk ci région de Puglia parce que liggéey bi foofu la te wax dëgg yàlla liggéey bi dafa laaj teel a yeewu ba noppi euh, dëkk fu jege nga xam ne da nga mën dem liggéey yàlla def na Casa Sankara ak organisation datore di labore yi muy employeur yi ak euh, ñooñu ñuy wax syndicato di di difesa dei laboratori syndicato di difesa dei laboratori yu mel ni FLAI yu mel ni WIL euh, yu mel ni CISL ñoom dañoo am benn mbootaay bu tuddee CIALA nga xam ne ñoom ñëpp ko bokk mooy syndicat des travailleurs ak syndicat des entrepreneurs dëgg yàlla ñu indi fi projet bu rafet boo xam ñoom pour xeex intermédiaire yi yi nga xam ne dañuy dund ci li kaw liggéeykat yi ñoom dañoo fas yéene indi ay bus fii ci Casa Sankara à partir du premier août bus yooyu mooy yóbbu liggéeykat yi ci tool yi suñu wàccee ñu jëli leen indi leen Casa Sankara te duñ fay dara loolu lu bees la musul am fii ci Pulyaar yi wax dëgg yàlla lu bees la te nag ñoom dañ cee taamu Casa Sankara tànn ci Casa Sankara pour lépp di déparé foofu mbokk donc looloo tax ñu leen di yëgal ne képp koo xam ne bëgg nga liggéey ci mbirum tool yi bëgg nga liggéey bu jaar yoon wax dëgg yàlla soo ñëwee fii ci Casa Sankara Casa Sankara mu ngi nekk ci San Severo via bi eh, mu nekk strada provi strada statale eh, numero ci kilomètre 354 354 am na bugguma joxe ay numéro de téléphone parce que ci mbirum liggéey fu ñu ko waxee rek soo ko joxee ni ñi dañ lay mbëmb di la te wax dëgg yàlla ñun bëgguñ benn yoon loo xam ne day ay illusion lay nekk waaye daal ci nim déparé nii am nañ yaakaar ne liggéey dina fi am te nag liggéeyu tool day fekk aussi nga am expérience tool nga mën liggéey ci tool moo ko bu baax parce que su dee dagg dagg dagg tomate euh, ku ko yaakaar da ngay fonne liggéey bu yomb la waaye nag du liggéey bu yomb ndaxte entrepreneur bi asien yi dañuy bugg au moins nit ki di dagg lu toll ci dix

responsable administrateur bi ko yore fii parce que damay ragal je ne sais pas pap lan nga ci xalaat maa ngi jégalu mbokk yi parce que numéro yi suñ ko joxee wax dëgg yàlla nit ñi seen téléphone day bëri donc képp ku ku ci jaral euh, fexeel nga ñëw parce que nag li ci taamu mooy ñi nga xam ne ñu ngi dëkkee ca euh, jege na fii ñàkkul ni sax suñ gisee ñu brave ñoo xam ne xam nañ liggéey mokkoon nañ ko am nañ expérience ñàkkul ci sax mbirum dëkkuwaay bi dina am loo xam ne dinañ ko ci mën a def kon nag képp koo xam ne soxla ko ci ñëwal Casa Sankara mu ngi nekk si San Severo à à peu trente kilomètres de Foggia soo ñëwee nga laaj Pape Samb moom mooy responsable administratif bi nga xam ne képp ku ci soxla soo ñëwee su jëlee say document évidemment il faut nga am document permis de séjour ak codice fiscale

parce que képp ku ci am liggéey doo ci eh, eh, fay transport pour dem te loolu wax dëgg yàlla lu bees na te ñu ñaan yàlla rek mu gën dëgër mu jaar jaar ci yoon mbokk yi donc loolu lañu leen doon indi tey fii ci eh, rajo defaral suñu bopp tabaski maa ngi ko tuddee tabaski dans le secteur agricole ndaxte wax dëgg yàlla fii vrai tabaski la ñuy def ndaxte fii ñu dëkkee dafa am jàkk xale yëpp booloo lu mot quatre cent booy booloo jullendooru tabaski rey suñu xar fees ko lekk ko xam naa ne pulaar yi ak fayeen yi dinañ ma waaye wax dëgg yàlla am naa loo xam ne ñooñu amuñ ko ndaxte tey fii ci Casa Sankara tabaski bi rey lañ fi def ñaan ñaan ay ñaan yu mag wax dëgg yàlla pour que ñëpp am jàmm kon nag mbokk yi loolu mooy xibaar bi beneen xibaar bi wax dëgg yàlla yeneen xibaar yi duñ ko wax saa mun ko muy. mbirum këyit yi sonal na doomu africain yi muy mbirum sanatoria mais ni mu koy farale di wax xam naa ni tey du mu ci mën a def eh, indi yeneen leeral yu bees waaye nag na ngeen fexe rek lépp eh, ngeen am ñu leen taxawu parce que nag mbir mi compliqué na ba pare defoon nañ ci émission mbokk yi donc seen xarit Baye Diouf fii ci rajo Défrel suñu bopp depuis Casa Sankara mbirum tool yàgg nañ ko di wax mbirum liggéey utum liggéey liggéey la dëgg yàlla fii structure bi fi am ñun joxewuñ liggéey jëluñ liggéey intermédiaire luñ liggéey waaye nag borom tool yi suñ ñëwee euh, képp koo xam ne bëgg nga liggéey ci tool te nga mën ko nag waxuñ rek ma sàmba bu mel ni bàyyi ju ne <laughs> musul <laughs> xam ne ñuy bàyyee yeewu ne da ngay ci lii su boobaa euh, sonn rek ngay tegal sa bopp parce que borom tool yi amna productivité bo xamné soko soo ko amul ñoom duñu rus sax né la ñibil ci bés bi dañ lay wax ñibil kon nak képp ko xamné ne miin nga tool liggéey nga ci toll mbokk yi euh ci soxlo su nga ñëwee Casa Sankara muy ñu dëkk ci biir Casa Sankara ak li ko wër muy Fodja yooyu yëpp mbokk yi képp ku ko dégg té soxla liggéey soo ñëwee fi da nga am liggéey bu baax bo xamné dañ lay garantie le tarif euh, le le salaire euh, officiel ni 6 euro 50 par heure defal la busta paga ba noppi wax dëgg yàlla yóbbu la nga dem liggéey ci kaar yi delloo si leen soo wàccee loolu mbokk wax dëgg yàlla euh, euh, euh, xéewal la mbokk yi donc du may faral di gudd ci émission yi comme ni mu ko waxe rajo defaral suñu bopp ñu ngi leen di ñaanal jàmm di leen ñaanal jàmm di ñaan ñëpp am liggéey ñëpp am liggéey jëriñoo ko wax dëgg yàlla loolu mooy. E, objectif yi rajo defaral suñu bopp mbokk ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm ba beneen yoon jërëjëf. na ci